Eh, woyef woyef nit woyef wallahi nañ ci yar suñ bopp woyef xam ne yaa ngi dox ci kaw suuf soo xam ne ay bàmmeel la suuf sii ngay dox di dem ak ñëw ba suñ maam aadama nekkee ci kaw suuf ak léegi li fi liñ fi suul kenn xamul nu mu ci kaw ay bàmmeel ngay dox yaa ngi dox ci eh, ci ci bàmmeel boo xam ne maanaam borom alal judul jeex la woon yoo xam ne mosaan a génn ñëpp dañ koy dar yow yaa ngi dox ci kawam tey ku nekk day féete suuf ci suuf mu féete la suuf moom suuf tanaa la mënoo dox ci kaw sama kaw tëddal ta noppi taxaar ñeneen ñi xam sa te ñëw xamal nga moos maa di mujjug ñëpp kenn du nekk day féete suuf suuf mu féete la suuf moom suuf te naan la mënootoo dox ci kaw sama kaw tëddal te noppi taxaar ñeneen ñi xam sa te ñëw xamoon nga moos ma di mujj ñep kenn duma raw mot rek ci bir suuf ci suuf rek lu bari bari lu gëdd daw ji bari bari bari bari lu reng reng ji bari ci suuf rek <laughs> suuf rek suuf jal suuf ndaysan bis bobu nga xamne eh, ndaysan xamu ku muy doon ci nun eh, gas nañ pax ma ndaysan mbooloo mu bari bari ñew ñew fa di xaar xaar ñu dara lu may ñu suulo dong la xaar lol dong xaar lay dem xaar yi pour nga jóg di wax ak kenn de dañ lay xaar pour ñu suul la xala xalaat leen ci loolu mbooloo moo xam ne lenn dong la ñuy xaar mooy ñu suul la loolu dong la ñuy xaar xala xala léegi pax maa ngi dugal nañ la sotti nañ ka la gënoon a jege ka gënoon a ka la gënoon a kii yow mën naa am sax maanaam la nga gënoon a bañ ci àddina mooy suuf taq la. boo doon dox nii sol yére yu baax sax maanaam ndox mi tis la sax lii la ay kii léegi yaa ngi ci biir suuf si léegi suuf lañuy ñuy sotti dañ koy jal dañ la koy jal dañ la koy jal dañ la koy fes jël ñu toog fa as ndiir dem ñibbi bàyyi la lii mooy lan yow yaay kan ana sa oto ya ana sa jongama ya ana sa biye yaa ngi ci biir suuf su mu amaataw fa aqbarahu nga lay fas seen tëdd nag di xaar waaw di xaar li ñuy wax mandat dépôt li ñuy wax mandat dépôt mooy koo xam ne lenn danga lay xaar mooy ñu àtte ko mooy bàmmeel yii ñu fi tëdd ñëpp ci mandat dépôt lañ nekk kañ la ñuy génn yawmul xuruj moom la yàlla tudde daalika yawmul xuruj yi bisub génn ba ah man de xamoo su ma génnee bàmmeel deng nga te bon indaale mo dara dara dara lo xari ne sëñ ak penc moom nim mu te legi mom ñaari keur dong ñofa nek muy keur aljana wala keur sawara te yow sëñ mana <laughs> ifi yi as sahira moy mana suuf khiyam fa yadhruha qaan saf safa tara fiha iwajan wala amta suloy dal la dekk suloy dal la bi nañ ko solo dàll yi déedéet dàll mbaxana mam daan waaja déedéet montre ba déedéet keneen a koy takk néeg sa néegu biir sa néegu biir bi nga xam ne yow kott yaa fa daan dugg sa doom sax moo daan dugg ngeen eh, fii fii fii yemal fii léegi nag mu dañ koy ubbi léegi fa kenn dawul am accès léegi ni ñaa ngi fay am accès sa soxna sa nga xam ne si dama naam ko ma xool sax nga kii léegi ni teg ko lëng moo ko takk léegi ana ana ana addina ana ana wa taraktum maa xawalnaakum waraa zuhurikum borom mi ne ne wala xaadi jitumuna furaada yéen ñëpp ñëw ñëwaat ngeen ci man doon ay benn benn furaada benn benn benn benn furaada kama xalaqnaakum awala marra ni ngeen ñëwoon addina rek furaada wa taraktum léegi bàyyi ngeen maa xawalnaakum laa leen joxoon ngeen moom ko lépp wara azhurikum te moo ne bi ngeen ñëw day ñi ñi ngeen waxoon ne ñoo leen di rama man gisu gisuma leen wa ma nara maakum shufaakum alladina zaamtum annahum fikum shuraka seen digganteeg ñooña dagg na laqad taqataa baynukum wala baynakum wa dalla ankum maa kuntum tasmaun fii daal lu fa waay jaay te du ragal yàlla lamb lay def bàmmeel lu fa waay jaay du ragal yàlla day lamb lamb ah buy wër wuure wane këng wuure wane këng lu fa lay def lamb dong dong loo fa mën a yóbbaale ci biir bàmmeel te du ragal yàlla da lamb lamb lay def yàlla xam na ko waye soo yubale yóbbaalee ak wetul sa borom subhanahu wa taala yiwu fa ak ragal yalla <laughs> rawda ngay am imma rawda min riyadil janna ab deur yent yalla xam mako wax de neena fi ci bir ko susu si na fi ay deur deuri aljana yalla nu yalla muy ay deuri aljana ta yalla na alquranul karim ha ah? manam mu nek sunu wetal fofa yalla na yalla defa yalla na yalla sa borom def alquran nek sunu wetal yowmal qiyamah bir bamel yalla na sa borom yalla defal